zahra yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii ña daa xiiru ak mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat seen gémmiñ yi saañ nañ ko mustawa ña daa jabar ña daa xaatim ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu te bul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustafa ci waaw mbaa ci waaw waaw mbaa ci woow woow nga tollu tey ku ñëw re ku jëkki jooy nda yaa doon Mustafa wolof nee na bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi wooteloo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si mustafa cheikh mustafa géeju ngëneel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma wal fa mustafa doxo maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi mustafa ma nga yeesalaa tuuba di tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon mustafa di sayloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum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 ña doon kaañi kankaan ba koleeraam fa mustawa kuloo wasra boo dex gaa ngi fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustawa wala istawil baraani asbun sarabo wa milxun ujaajun bul xiyaas nit ci